ndaxte moom li mu liggéey ci islam yaatu na lool waaye itam li mu def ci ñun taalibe yi ak mboolem umma bi day loo xam ni kenn waru ko naatable. to really understand what it strong. ñu ràññeeku lool teew jóge Sénégal ak mbooleem juróom fukki état yi nekk ci Amérique ngir sargal Cheikhul Khadim. yëg-yëgu fierté mbégte euh, l'islam amati ndam yoonu murid amati ndam Sénégal amati ndam ñëwee. digal bi nga xam ne moom la ñu Cheikh Mourtada joxoon ñu ciy wéy ba tey donc sant yàlla rek la ñuy def gis la boo xam ne boo gisee ni mu demee nga gis Amérique ak li muy rëy yëpp ak ñun niñ fi nekk ay immigré ñu jox ñu mbokk yi saa bu ñu jógee di def lu mel nii autorité yi yombalal ñu ko ñu ànd ci dox ci mu doon lu rafet Sénégal nag xam loolu xam ne raaya Sénégal moo ci moo tax saa bu ñu jógee dinañu ànd ak délégation ñi nga xam ne ñoom la état wu Sénégal di yónni ngir ñu ñëw jëmal taxawaayu état du senegal ci bis bi. gis nga ko tey chef de cabinet du premier ministre moom la état du Sénégal délégué boole ko ak ki nga xam ne mooy honorable député Cheikh Thioro Mbacké. bokk na ci mbooloo mi bàyyi ko Sénégal teewee dox bi ñu fi teewal président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko. ku ci mel ni Djibi Gueye Ndiaye mi chef de cabinet bu premier ministre ak Cheikh Thioro Mbacké yu député ci assemblée nationale ñoom ñëpp ñu lu bés bu mel ni di am ci Amérique. nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyu ak siyaar bi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaan sama borom mu yàgg fi tëbër di ko kilifa diine yëpp di am solo la ñëw fii ci délégation officielle ci njiital président de la république son excellence président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre mu délégué woon chef de cabinet euh, tonton Djibi Gueye délégué woon man mi pour ñëw teewal ko fi ndax moom moo amoon yëg-yëgu teew ndax xam na bis bi importance def 36 bi fii Bamba Dey bi kon sentiment fierté la ak mbégte ak contentement di ñaan yàlla nag suñu borom may ñu fekk ko at yu bëree bëree bëri ndax li yokkute yoon mu mel ne tey yaa ngi yow yaa ngi biir Touba sax da effectivement mooy li ma la wax rek day wane ne seen nekkin fii moo rafet mm-hmm. ndax bu fi seen nekkin rafet doon lii du mën a am bu fekkoon yor nañ fi beneen comportement duñ leen fi lii mm-hmm. kon lépp luñ def benn def ko ñaari bañaan sixième édition bi day war naa seen nekk rafet bés sëñ Touba fekkee ko jar na lu nekk liñ naan bu fi yemoon sax mu ne ah, yàlla def tamit ñu gis ni lii lu yéeme la ndax lu toll ni États-Unis tey ñu tëj mbedd yëpp ndax benn jëmm loolu lu jara màggal la lii day wane ni sëñ bi amul morom kenn rek la kon dañuy rafetlu suñu teewaay ndax tey dañoo ñëw ci turu Bassirou Diomaye Faye di président de la République ak euh, Ousmane Sonko di premier ministre man may chef de cabinet am nee ñëw ànd ak sëñ Cheikh di député assemblée ñu ñëw teewe bis mhm. ci tamit mu euh, gis ni accompagnement bi yëpp euh, consul bi ñu ko doxee bu baax a baax baax mhm. dem nañ ziare sëñ bi dañuy xaar rek yegg ci cérémonie bi mën mhm. a soog a sànni ay kàddu ci turu gouvernement wu Sénégal bi fi yabal marche bi nag bu jeexee ci suufu set building bi nekk ci 125e rue ci la Serigne Mamoun Mbacke di yëkkati ay kàddu soññ mbokk taalibe yi ñu gën a góorgóorlu ci lislaam waaye tamit gën a liggéeyal Serigne Touba ci gox bi ñu nekk. ñu ngi am mbégte sant yàlla di teewaat fii muy wax niñ ko jëm mooy fanweeru at ak juróom yaa nañ ko fekkee lu bari. ñu di leen félicité aussi di leen ndokkeel di di leen di leen di leen di aussi ndax diine. man nit ki dafa am ñaari mbir yoo xam ne danañ ko xëy na lu am solo la ci nit mooy nangoo doon responsable ndax yàlla dana la jox responsabilité te doo ko nangoo doo nekk responsable parce que responsable mooy ki nga xam ne ab yan lay def lañ ko jox muy lépp da koy yóbbu bu lu mu naqari naqari ak lu metti metti daf cay loolu la ñu gis te na ko yàlla saxal li ci mooy ab dogu dañuy wax ne détermination ci nit mooy nit yàlla ci boppam dafa am loo xam ne daf koy daf daf léppam bu muy wax ak ci alxuraan wala mu dëkk yonent bi solo di ko leeral na ca biir lépp mooy loo jëm ci nit la waaye nag teewul muy tànn ay mots yoo xam ne bu ko waxee lay nekk ca biir day bari lool mooy tuuti ma azum boobu ñuy wax ndax loolu daay wax ne toujours baat la boo xam ne ñëpp mu dogoo ngi ci muñ a ngi ci ngëm ngi ci doyloo ngi ci juba ngi ci lépp mi ngi ci baat ndax loolu la waxul aadama ndax aadama la mu seq ak moom lépp ci àjjana ku ko seq ak dara ak lu man di doon sax kooku waroon na faa a yem bu dee wala wala daaw naa yéene aadama man xam ko nas yéen wala na julloo baat la boo xam ne noonu ci nun liñ jëm si xas la xas la loo xam ne nun noo ko moom baat boobu boo ko tasee lépp a ngi ci biir ñàkk jom ak bañ a yam te la nga war yam ak bañ a jëm ko fu ñu xam ak loolu la loolu nag jàpp nañ ne yéen a ngi ci jéem yéen ngi ci parce que ndax détermination bu amul ci dara rek loolu la yàlla wax ci aadama wax ko tamit yoon bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga muñ na ñoom détermination baat boobu yonent yi li ñuy bari bari bari nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñeenti ñeenti nit la ci sunu am jël wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko defal ñoom parce que commencé na bu la ros kon baat la boo boo nekkee ci mbir di ca dogu dañ cay nekk te dañ xaaroo ci lu dul lu jëriñ kon tamit loolu leen ci gën a encouragé bu baax a baax di leen di ñaanal ca xaar yooyu feeg mi ngi ci nit kooku mu am résultat te résultat baax lay doon kon yàlla noonu ko yàlla defal li mooy noonu tamit nu gën a góorgóorlu ànd nekk benn këri diine yi doroowuñu mban ñi fi nekkoon sëñ Touba ma lim waaye ñooñu nekkuñu woon nit ñi di leen biir parce que dañu booloom nit lan nag war ko bëgg mooy ab yonent yàlla da leen doon yabal leen fexe ba nit ñi gëm tax ko kon li leen boole woon leen bi campagne leen bu wut leen pour ñu ànd ak ñoom daje ak ñoom lépp loolu ko la jëkkatoon dañoo defoon ne lu nit ñi gën a bari bu ñu leen waxee ñu dégg ko topp yàlla loolu mooy doon seen seen résultat yu baax kon ñoom tamit ñi fi nekk di ay jullit muy muy kër bu mu di doon li leen ci indi mooy ngeen ànd nekk benn kon ñi ngi leen di gërëm bu baax organisation bi baax na li ci des mooy Nations Unies Nations Unies xam ngeen ne symbole la xëy na suba lañ fay dem ay waxtu lañ am foofu yi tamit dañoo wax rek ne nañ ko nañu fexe ba ñu xam ne benn minute képp am ko foofa loolu tuuti ndax du jagee jëm ñu barab la waaye la jëmi barab ku ne xam ne du barab bu ndaw kon nag suñu nu fa mayee loo xam ne mësuñu ko may kenn muy diine bu noppi kon saa bu ñu koy dem nañ ko dem demin dignité buñ doy dul ndax lépp lu fa nit di def dañ koy xam te dañ koy wëlbatiku di ko xoolaat nañ fa sagalit ki nga xam ne mooy sunu ambassadeur bi fi nekk mooy Cheikh Niang ak diplomate yi fi nekk ndax ñoom itam la ñuy doon lay wax ci biir ak di ko lay léeg-léeg ñoom woo leen wax leen laaj leen lu métti loo xam ne xëy na looy laya lay fexe ba ma mu rafet loolu tamit nañ leen ci dimbale ba foofa moom lépp lu ñuy def nañ ko fa def ndànk dugg fa ñu def fa lañ fa def waxta yooyu ñu yemale ko ba mu bees benn minute bu defee ëllëg ñu xam ne diine am na ndam loolu tamit ñu ngi leen koy ñaan loolu ñun ñoo leen ko ñaan parce que organise service ñi organise sax ñoo war a wax loolu mais ñun tamit dañoo waxoon ne lépp loo xam ne ci biir mbir mi la ñu di wax ndax tamit dañoo jàpp ne noog a ci yem tey la ñuy a gis di ko wax ak la nga xam ne ñi tamit danañ ko xam yokkul dana ci am loo xam ne yéen du egg ci yéen loolu daal nit lañ ci gërëm bu baax di sant ñëpp di delluwaat di sant waa gouvernement bi ci boppam ni ma ko waxee rek waxtu bu nekk suñ ko demee ci département te liñ ñuy wax ak lañ koy jëlee ak ñi ñuy gisee ñoom lu am solo la te ñoom duñ caaxaan ba kilifa yu fa mën a àgg sax kon àgg fa du suum daraja du leneen may jàpp nañ ne lay tax ñu dafa mooy li li nu boole ak yéen ñii la kenn ku ci nekk yéen mën nañ laa jël pour dugal la kon nag nañ gën a sàmmante loolu ñooy gërëm ñëpp yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla ko yàlla fekkewaat yàlla ko yàlla kenn yàlla ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi doon lu njëkk ci Bamba Day bi gannaaw bi mu am yeneen i jotaay lu ci mel ni conférence bi am ca Nations Unies foofu itam ca Nations Unies mu am ay conférence yu am solo lu ci mel ni bii nga xamante ni bii professeur Gana Ndiaye nekk ba Yale University moom moo ko amal wax ci wax ju am solo lu jëm ci taxawaayu yoonu murit ci bitim réew waaye tamit lépp li nga xamante ni bii dafa aju ci nan la ñuy fexee ba murit yi gën a nekk benn. fii ci Nations Unies xale yi yëkkati nañ fi alxuraanul karim di ay gone yoo xamante ni bii ci réew mi la ñu juddoo jàng fi alxuraan di firndeel rek la nga xamante ni bii Serigne Mourtada bëggoon na ko muy mbooleem ki nga xamante ni dafa ñëw ci réew yi nga xamante ni ay réew yi jàmbur lañ ñu jàngal xale yi yar leen ba seen diine du des gannaaw. a'udhu billahi minash bismillahi rrahmani rrahim rabbul mashriqi wal maghribi laa ilaha illa huwa fattaxizhu wakiila wasbir calaa maa yaquuluuna wahjurhum hajaran jamiila ci jotaay boobu ci Nations Unies xasida yi Sëñ Tuubaa yi jëpp na fi ndax Abdou Lahad Diouf yëkkati na xasaayit yaa raxmaanu yaa raxiimu di firndeel rek yërmaande gi nga xamante ni Cheikhul Khadim amoon na ko ci jaam ñi te ko doon ñaan suñu borom ngir mu yërëm mbindeef yi raxmaanu habli jamiil xalqi raxmata man yuxni ani sharri man quraanuhu qaraa المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ jotaayu Nations Unies bi nag da di jotaay bu am solo ndax salle bi ñu koy defee mooy salle numéro 4 bu assemblée générale Nations Unies ci teewaayu Serigne Mamour Mbacké Mourtada ak ñi jóge Sénégal waaye itam li nga xamante ni bi moo di ambassadeur bu Sénégal auprès des Nations Unies di ambassadeur Cheikh Niang yëkkati kàddu yu am solo ki fi teewal son excellence Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko di Djibi Gueye Ndiaye ay kàddu fii ci Nations sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko commencé ci sunu sëriñ sunu kilifa di sëñ maam Mor Mbacke mi teew fii di nuyu son excellence ambassadeur Cheikh di nuyu le consul général suma njaatige di sëñ Amadou Ndaw di nuyu kilifa diine yi yëpp ak kilifa aada yi di rafetluwaat jataayu tey bi comme ni ñu ko waxee woon démb li koy firnde mooy tey son excellence di Bassirou Diomaye fay foog naa ni li am fi yëpp dara ump ko ci li tax ma wax loolu ndax euh, dëmb ci guddi dañu jokkoo ak euh, premier ministre Sonko muy rafetluwaat jataay bi surtout li am dëmb di ci sant sëñ bi lool di ko ci gërëm ndax euh, li mu gis démb ak li mu ci jot a dégg vraiment dal na xelam kon loolu mënuñu ko woon bañ a njëkkee nii di la sëñ bi ni premier ministre démb daal woo nañu ne fi mu daal ah, journée yi ni muy déroulé rafetlu na ko lool. mais beneen bi ci ëpp solo mooy que ni ci li ñu wax ci thème bi man dama ci seppi ñaar rek wax ci ci mbirum ah, jàmm ndax euh, jàmm moom. foog naa ne ñëpp xam nañ ci sëñ Touba la njëkkee fa lay mujjee ndax foog naa ne bu ma juumul ah, sanc na dëkk boo xam ne sax daaru salaam la ko tuddee ñëpp xam ni mooy këru jàmm loolu kon day wane ni que ni rek moom lépp loo xam ne luy wàllu jàmm la di ko dox moom anticiper woon na ci yàgg na te fu mu mus dem foofu la koy wane ndax tey jàmm jooju mu doon prôné moo waral tey Amérique ni muy toll yëpp journée culturelle bu jotee ñu tëj ay mbedd baatu laa ilaaha illallaah di fi jóg xasaay di di fi jóg sikar yi di fi jóg loolu foog naa ni dimension Sëñ tubaab moo waral lii kon loolu foog naa ni jàmm nu rëy loolu ah nit ñi nag am na ñoo xam ne jàmm ci ay histoire lañ koy jëlee wala ah, doole wala lu nekk mais moom ñëpp xam nañ ni jàmmam lislaam la ko jëlee ci la ko tàggatee te ci lay tàggatee ay sëtam ci doomam te dañuy ñaan yàlla muy law ba ci suuf. sëriñ Maam Mor Mbàkke Murtada tam wax ay kàddu yu am solo dénk ko askan wi ci barab bi nga xamante ni bii mooy mbootaayu xeet gi mu doon kàddu yu am solo. asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu leen nuyoo nuyu kilifa yi fi teew yëpp euh, tàmbalee ko ci kilifa diine yi tàmbalee ko ci tamit ñi nga xam ne ñoo fi teewal teewal kilifa yi. di nuyu tamit ki nga xam ne moo fi teewal président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am sonk Sonko di sëñ Jibi njaay ak sëñ Cheikh Thioro Mbacké di nuyu bu baax it ndax barab bi comme dafa am kilifa gu fi nekk muy secrétaire euh, secrétaire général bu nga xam ne mooy mbootaayu xeet bi di Antonio Guterres di nuyu tamit euh, ambassadeur Cheikh Niang bi nga xam ne moom i tamit di ko nuyu bu baax di ko sant ndax lu baree bari yàgg nañu fee ñëw ay at la yoo xam ne fii lañ koy fekk te bësul soppeeku te lim fi nekk yëpp mooy rafetal diggante bi di dox diplomatie goo xam ne bu ñun ñëpp nangu lañu te du léegi te mosuñu ci gis benn rëq-rëq ñu ngi koy sax gën gërëm bu baax. di sant tamit El Ndaw mi xam ne mooy consul général bi fi nekk moom itam ci taxawaayam ak li nga xam ne waxtu wu nekk du soppeeku ci liggéey ànd kook ñun moom itam bu baax. nag kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo fi mooy ñi nga xam ne ñoo fi représenté corps diplomatique bi di nuyu bu baax itam ki nga xam ne mooy ambassadeur Diome bi nga xam ne moo fi daaw xam ne ambassadeur Cheikh nekku fi mu amoon taxawaay bu rafet doon def ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ak ñoom di liggéey ak ñoom di leen sant bu baax di di am mbégte bu baax ci ubbi ba bar euh, euh, bii nga xam ne mooy euh, fanweeri yoon ak juróomeel ci édition bi nga xam ne moom lañ ci doon def depuis sëñ Mourtada nga xam ne 89 la tàmbali woon ñu jotoon proclamation bi nga xam ne mooy bu New York ñuy def at bu jot ñu ñëw teewe ko ak communauté bi di nuyu Pape Dramé mi nga xam ne moo jiitee ko Kimika wante mboolem ñi nga xam ne ñoo seq ak moom liggéey bi te nekk ci état yi te bisu démb bi kenn manqué wul ñëpp ñëwoon ci. loolu lépp ñu nekk liggéey bi ni mu ko waxee sànq rek euh, bu ko fekkoonte ne sëñ Mourtada daf ko bëggoon te sëñ Mourtada wax naa ne amul dara lu muy def pour boppam wala mu di ko waajale njabootam wala dara lépp lu muy def lislaam la te lislaam buñ ko waxee jullit yëpp ñoo ko bokk kon dafa mel ne li fi nekk lépp taxawaay boobu lañ yëpp am ci ci ci bés bi mooy kenn ku nekk jàpp nga ne këru diine yëpp ñoo fi ñoo fi nekk su jotee kenn du xamante kenn fa la nekk wala dara kenn ku ne yëf yi sa yëf la te loolu moo taxoon mbir mi jóg ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di xam ne bés bi tamit buñ ko xoolee ba xool ko xam ne bésul diine la bésul islaam la bés la boo xam ne du ñun rek ñoo ko moom muy Sénégal rek wala jullit Sénégal rek wante dafa mel ni bii jullite adduna bu la ndax barab bii nga xam ne moom lañ koy defee ku ne xam na ne du barab boo xam ne li ko taxoon a jóg wala bi ñu ko fi def li ko taxoon a jóg mooy mooy mooy mooy ay activité diine loolu taxu koo jóg wante nag bu ñu gisee ne diine ñoom ñoom ñi jàpp ne ne dégg nañ diine ne diine mooy mooy loo xam ne Euh, euh, mbirum yàlla la yàlla moo moo moo moo moo moo nu kariyeel diine kon lépp loo xam ne da ciy da dañ cay dox ca loola mooy luy defar doomu aadama ak lu koy def ci yoon boo xam ne léppam ci àdduna dana dana tege ci yoon wante fa mu jëm ci àllaaxira tamit dafa dafay dafay dëppoo ak li mu war a kon barab bi bu ñu ko joxee noonu joxe ko ci ci lu mel noonu euh, mu mel ne kon dégg nañ ne diine du loo xam ne yëfi nit la waaye yëfi nit ñëpp la kon loolu tamit ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen ci sant bi xam ne loolu mooy moo moo moo moo moo moo moo tax ñu ñu dégg guñ dégg loolu tax na ñu ñu ñu ñun tam ñu di leen sant bu baax eh, li ci desit ñu xam ne eh, di diirub fanweeri at ak juróom ñu ngi koy def di ci def loo xam ne di ko defee fii te waa réew mi tamit muy eh, gouvernement Amérique bi nekk ci di ci di ci jàpp ñun nag dafa am loo xam ne dañ koy junj dañ koy junj lu bari mooy mooy lu mel ni imanisme boobu ñuy wax humanité ci wàllu insaniya euh, ci wàllu imanité dafay ñetti xaaj benn bi boo xam ne mooy humanité boo xam ne nit ak nit la insaniyatul bashar nga xam ne nit rek la kooku nit ku euh, yor tànk yor bopp loolu moo ci wàll googu boobu ci ci humanité la tam ci des humanisme boo xam ne nit ki la muy def ci lu baax la waaye beneen humanité nag boo xam ne mooy humanité boo xam ne diplomatie la boobu nag humanité diplomatie boobu nag nga xam ne boo ko boo ko xasee ba di ko doxee doo xam melo doo xam kii la mel kii doo xam kii am na doo xam kii amul kii doye dina doo xam doyedul loolu dafa mel ne réew mi mel na ne loolu ñoom jàpp nañ ko jàppee bu am solo te boobu mooy bi nga xam ne dafa dëppoo ak diine ndax diine lépp lu ko ci tax a jóg mooy luy dimbale nit ak lu koy defar kon su fekkente ne ñoom ci côté boobu dafa mel na ñoo ci ñu ngi ci loolu la ñu xoolee dafa dëppoog li nga xam ne mooy diine kon ñun tamit xeebuñu ñu ci dara te lépp luñ fi bëgg a def ñu ngi koy def te amuñu ci benn jafe-jafe waaye nag loolu tamit day laaj ñu tamit jéem ko mérito moo tax yéen ñi fi nekk buñ gisee ngeen ànd nekk benn di àndandoo ci lépp ngeen xam ne loolu moo tax yëf yi jóg waaye xàjjaloo ki ak dugg fi ak yooyu yëpp taxul moon mu jóg kon daal li ci am solo mooy Eh, ñu pour gàttal ñu ngi gërëm ñëpp di leen xam ne bés bi bésu diine la bésu lislaam la bésu ñëpp la ñu ngi sant bu baax it soxna yi góor yi ak jigéen ñi ndax gis nañ ne ñoom itamit lépp lu ñuy def ñu ngi ci biir te ñoom jéem a fexe rek ñoom itam ba am seen responsabilité ndax jigéen yàlla dafa ko fonk wante nag dafa am yeneen responsabilité yoo xam ne lu ca baax lu ci baree bari mën naa jaar ci moom kon nag na ngeen na ngeen leen eh, na ngeen leen na ngeen gën a góorgóorlu yéen itam ci wàllu sëy yi gone yii fi nekkee ñu di leen jàngale ñu ngi ci sant bu baax soxna Walimata ndax sonn na ci ñu fexe ba yar leen barab yi nga xam ne tamit mooy barab yi ngeen di am nga xam ne dañuy dajale seeni tuuti di ko jënd ñu xam ne barab yooyu barabu defarukaay la ndax kër sëñ Touba sëñ Mourtala daan wax këru lislaam ndax sëñ Touba lislaam la lislaam la ko la amee léppam kon barab yooyu tamit nañ fexe ba gën koo toppatoo ngeen di dajaloo di dajale lu ngeen am ànd ak barab fenn ngi bés boo ko sotti ngeen jàll ca këjëles te fexe ba organiser ko tamit ba mën a am beneen njariñ nag loolu li koy mën a moo mooy ñu yar sunu ay xale li ngeen def ba am fi résultat yu mel ni buñ ci yaree xale yi lay dafay gën a wéy dafa gën a yaatu kon daal ñëpp wax ji gudd na waaye ñu leen di gërëm di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu def fi jàmm te noonu la ko ambassadeur Cheikh Niang daal di tontoo xamal ko ne ko sa kàddu yi am na solo lool te dëppoo nag barab bii nga xamante ni bii mooy Nations Unies. Euh, am mbégte loolu nag di euh, dalal aussi délégation officielle bi jógee Dakar muy chef de cabinet du premier ministre Gabriel Gueye Ndiaye ànd ak euh, Cheikh honorable député Cheikh Thioro Mbacké di rafetlu kàddu yi nga sëriñ bi. li nga fi wax je pense que boo ko waxoon euh, assemblée générale des nations unies ni ñi dinañ ko déglu lool parce que li nga wax dafa méngoog charte wu nations unies message bi nga fi lancé muy message de paix message de cohésion dafa nekk loo xam ne lii nations unies mi ngi koy dox depuis ñu créé ko depuis ñu créé ko au lendemain la deuxième guerre mondiale maa ngi rappelé wu euh, sa réunion bi nga amoon fii ça fait trois ans avec euh, le CSG Antonio Guterres mu nekkoon entretien bu am solo entretien boobu entretien boobu euh, rafetlu na sa taxawaay ci gën a dëgëral diine ci àdduna bi mais aussi di doxal loo xam ne ni mooy les valeurs intrinsèques de de l'islam maanaam d'abord la spiritualité deuxièmement di dox jàmm di jox la coexistence pacifique maanaam di yaatal di dox di euh, prôner aussi la compassion muy yëg ak jub. marché bi doon lu njëkk ci bàmba Day bi gannaaw bi mu am yeneeni jotaay lu ci mel ni conférence bi am ca Nations Unies ak yeneeni état yoo xam ni fu ci nekk proclamé nañu fa bésub Cheikh Ahmadou Bamba muy Bamba Day te Serigne Mamor Mbacke di fa ànd ak délégation fu ci mel ni Washington DC Atlanta Dallas Los Angeles Philadelphie Cincinnati wala Caroline du Nord ak yeneen i barab yoo xamante ni fenn fu ci nekk taalibe yi ñu ngi koy xaar te mu fas yéene faa dem lépp ngir yaatal dëgëral la Serigne tubaa waxoon ni. lakka mata biya bi shukrin warida yaawaa sixan wasaxtali bi muxtada bayit boobu Serigne tubaa di ci wax suñu borom nan ko sama tuub sama cant ak sama ngërëm lépp ñeen na la yow suñu boroom yow bi nga xamante ni bi yaa di adi yaatal te yaatal nga sama mbir ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni bi turam wa di al murtada te barke boobu nag kenn amul sikk ci ne suñu borom yaatalal na wooteeb Serigne tubaab yi ci jéego yi nga xamante ni bii Serigne Mourtada doon na ko jéego ci àdduna bi yëpp te loolu firnde gi ci gën a wér mooy Bamba dey bii ñuy amal ci réew mi di Amérique.